loolu am na yéen ci koñ bi ngeen dëkk. ñun ci ñun ñëpp ay sénégalais lañu bu ñu sañoon naa ñun ñëpp ay nekk. xam nga wax mais nag xam nga affaire yi da ngay waaru quoi ñun ñëpp ñoo bokk julit xam nga julit mënul waaw julit mënul julit julit mënul soxore moroomu julitam ku fekkee ne julit mënoo soxore sa moroomu julit mais nañu bàyyi di ko gisee nen ay naan waa Colobane ak waa Colobane mais waa Colobane ay nit lañu ñu bëgg a dund kaay kaay ñii yéen la waa dëkk ñun la yi waa Colobane ñun ñoo sàkku ça fait plus de quatre mois pour ñu désencombre ñu parce que Colobane étouffe le marché fële la yem mais xoolal tali bi kenn du jàll xam na nag ñu ñëw avec l' arrêté du ministère de l' intérieur bi demandé au gouverneur au préfet nañu désengorger nañu dégager les voies publiques ñu jël bind toutes les autorités bind le maire ñu ñoo andi di désengorger xool ñu désengorger yoon dugg ñu subvention dem ci dara fii kenn mënu jaar léegi ñoom moomu ñoo taxaw une minorité de de commerçants naan euh, ñu si alors qu'on a tenu une réunion, euh, euh, plusieurs réunions de euh, commission ad avec la mairie, les représentants des commerçants et les riverains pendant deux mois pour préparer ça ah dugg ci magasin dugg ñu ci marché artères yi yoon bii ah mais am na une une vieille maman bu dëkk fële dañuy fay médecin pour mu ñëw faj si ko parce que taxi mënul ñëw jël si ko mais loolu la ñu fi jëlee moom Ousmane Fall mu ñëw il se met à deux des populations ah mais quand même ça c'est pas responsable ah warul induire le premier ministre en erreur ah il doit donner les bonnes informations au premier ministre nous ne sommes plus patriotes que lui xam nga ñun ñoo ko gën a dee ci Ousmane mais li mu def teg ko fenn waxu ko dëgg li am fii désencombrement la libérer les voies publiques te seen ministre de l' intérieur moo génne arrêté instruire les gouverneurs et les préfets léegi Colobane le Colobane ne vit pas nous n'avons plus de terrain de football le grand notre terrain de football nous ne pouvons plus ah on a eu des accidents mortels parce que les gens marchent sur la chaussée waaw mais léegi qu'est-ce qu'ils veulent le PM moom moo jubal ak jubante nous on nous habitons dans un quartier résidentiel on veut un cadre de vie assaini un terrain de foot le marché ñu délimité ko marché bi ci marché bi population mën a dund mais fii mënatoo dund ca maire en tant que mère de famille yow dafa mel ni defe naa ni yéen jigéen ñi la insécurité di gën a sonnal ndax yéen ay gën a 6 eh, heures ngeen di génn ci kër yi 22 euh, heures wala yooyu ngeen ciy dugg si waat te bépp ñu wax ci insécurité ji wàllum jigéen lay gën a sonnal ban réaction nga ciy am. waaw li ma ciy wax rek mooy artère bi ngay gis nii rek ñun pour ñu dugg fi di dem marché da ngay foofu leen teg ñoom ci biir taabal yi ci kaw tali bi la nekk nga romb mën nañu këf sa yore ñu këf ko. dañoo sonn waa Colobane si boppam ñoo sonn maa ngi dégg léegi kenn ko ànd ak commerçant yi mu ne Colobane marché la ku bëgg foo dëkk na nga fa dëkk mais dëkk bi moo fi jiitu marché bi. dëkk bi moo fi jiitu marché bi donc am nañu droit à un cadre de vie sain du dëgg kon nag loolu rek la ñuy loolu rek la ñu bëgg ñun loolu rek la ñu bëgg waaw bëgguñu leen. bu ma déggee yéen ñi nga xamante ne yéen a fi dëkk vous êtes d'accord ak déguerpissement bi ak désencombrement bi. yéen ñi à 100 pour cent gis nga man mii ngay gis ni añaguma dama bàyyi sama añ sama lépp ñëw fekk si lii pour kii. waaw nous sommes à 100 pour cent pour ah, waaw kenn amuñu dunduñu dunduñu ñi nekk ci seen i cantine nañ nekk ci ñi nekk ci ci dëgg ñu ngi dëgg mais ñi nekkul ci dëgg nañ nañ ñu bàyyi nañ ñu dem uti julli légal ñu nekk ñu may ñu ñu dund ñun tamit aussi. ci biir école bi la ñuy tuuree ndox ci biir école bi pour lan école baa ngi nii école Misera boo ñëwee hôpital baa ngi nii ah léegi ñun fan lañ jëm suñu xale yi xoolal koñ bi xoolal koñ bi xoolal koñ bi doo gis xale bu génn foo pour lan. wala ñun waa Colobane du ñu ay nit suñu terrain ngi ñu jël ko jox ko kan Pam Abdoulaye Matar Diop jël terrain bi joxe ko xale yaa ngi nii vacances football duñu léegi ñun football duñu xale kenn football dul ci biir tali bi la ñu kii barki moo Ndiaye un un enfant de huit ans horaire oto moo daanu ci kawam tànkam horaire mu oto moo daanu ci kawam tànkam xale bu am huit ans wallahi azim ay fer moo nekk si tànk bi xale bi tànku na xale bi premier deuxième troisième la doon jël école dimbali te yàlla dañu dimbali yàlla bi ni ngeen ci mel noonu la ci sénégalais yëpp mel mais sénégalais ñu bëri ñu bëri dañuy gis ne jaay doole la wala mënoon leen nangam wala yooyu jaay doole amu fi mairie bi def na lu mu war a def jël nañu ay sommation jox nañ leen ko ñoom ñëpp ku si ne jox nañ la sa tomate mois de janvier lañ leen abet yi wax leen ko kenn dajju fi magasin wu kenn taabal yi ne si tali bi lañ doon dindi nit day génn àdduna fii jàq yi ñu war a génn dem yóbbu ko armère ya il va falloir que escouteurs ñooy ñëw cadré a jàll ñaata nit ñooy génn fii pour ñu génn fii problème la cortège mortière day jaar fii pour ñu jàll problème la parce que yaa ngi taxaw ci kaw tali bi teg fa ay table loolu logique na nangu na xel nañu dimbali da yàlla def tali kenn du fa teg table di liggéey ah, table kenn du ko teg ci mais imagine école ñoom dañu bokk ak xale yu toilette est-ce que loolu c'est normal imagine ci biir école ñoom fan la ñuy demee toilette ñoom fii fan la ñuy demee toilette ci benn école bokk ak xale yu loolu c'est pas normal munoo ñëw nga ne da ngay liggéey ci kaw tali ah léegi liggéey ci kaw tali loolu fan la am suñu bakkan yi lañ fiy teg billaahi ñoom duñ fi teg taabal di jaay na leen gouvernement bi autorisé mais doo fii duñ fi teg mais nañ dugg ci biir marché bi xoolal ñoom ñu ci bëri am nañ ci biir marché bi place ñu ci bëri am nañ ci biir mais foo nekk sa wërsëg fekk la fa nit da ngay gëm yàlla tout te teew foo nekk sa wërsëg fekk la fa foo nekk fu ne sa wërsëg dala fay. kenn pourquoi wàcc ñu taabal. mu gën a métti mu gënoon jekk Abbas li mu bëgg mënut a jàll ci quartier bi. ñoom ñoo bëgg a jël le problème de Colobane ou bien le problème de l'encombrement du Sénégal bu ko jëf bu ko jël une question politique et c'est pas une question politique c'est une demande sociale yéen ñi ngeen taxaw fii di avec votre caméra su ngeen xoolee di gis ne li am Colobane dafa jéggi dayoo man su ne ay grandi dans ce quartier amul lenn lu ñuy envier les jeunes de les Almadies wala dans les régions et départements du Sénégal wala wala partout dans le monde ñun on demande juste un cadre de dëkk ànd ci ak ñoom les commerçants ñu créé en comité CADOC euh, ak di ci liggéey pendant plus de deux mois ñoom la ñu àndal ñoom ñoo définir ak ñun ñoo définir en plan d' action ba ñu définir plan d' action da ngeen gis ñu daje fi benn magasin jàmbur dañu fi magasin jàmbur ak Colobane ngay ñëw ñu dagg Massalikul Jinaan jox Colobane jox état dagg parti socialiste dagg parc à Mazout monument de la renaissance monument monument de l' dagg gendarmerie dagg Abdou Diassé est-ce que nga ba pare nga ñëw 9 hectares 9 hectares nañ taxaw nañ nañ taxaw na nañ taxaw na le nañ dem taxaw na le. Eh, euh, ñoo ngi nii ak les habitants vraiment de de Colobane avec les habitants de de Colobane ay ca grand ñu ñu yeggalee ko fii. dañuy wax ne. ak Colobane li ma la limal yëpp ñu dagg ko ci suufu Colobane lañ ko daggee ba ñu dagg marché bi ba tuloon 9 hectares mais gis nañ ne bi mi ngi màgg ngeen gis école bi ñu wax école Moustapha Cissé ñu dagg moitié école bi man j'ai fait l'école primaire là-bas CI ak CP fa ko defee mais cour bu ndaw bu ñu wax dañ ko mujj dagg boole ko ci marché bi uniquement pour soulager les commerçants mais kon loolu suñu bañoon da ngeen gis waa Colobane revendiqué yu ne dañoo bëgg ñu jox leen marché bi mais marché bi ça appartient à la nation sénégalaise mais suñu daggee nag 9 hectares dans un quartier fan ngeen gis ci Afrique de l'Ouest ñu dagg 9 hectares de marché plus de 5000 magasins dans un quartier ba pare ngeen bëgg ñu imposer ñu aussi la société nit ñi ñëw la bu ñu ànd ak ñoom les commerçants ak la mairie mais Abass Fall n'a pas n'a pas à venir ici dans ce lay rencontrer moom nañu wax li mu su nekkee ne am na un bon programme a Fall nañu wax moom ba mu ñëwee kan la rencontré ak kan moo ko jox cette information ak lan moo tax mu ñu di def le sapeur pompier. mais mais la question que tout le lu tax l'ancien régime defuñu woon lii ñu xaar ba ñuy def fi 3 mois ñu engagé lii nii euh, subitement. kon vous ne vous ne suivez pas l'actualité c'est pas la première fois muy am désencombrement à Colobane c'est la énième fois muy am te mosu gis ci désencombrement Colobane ñu dajji magasin am ah, mosul am tablier li ñuy dindi ça a toujours été amul maire bi fu mës a jaar ci li ma fàttaliku ci Adama Ba ci Seynabou Wade Ousmane Ndoye ba ci Abdou Aziz Paye xanaa léegi lañ bëgg a jël def ko une question politique mais ça n'a jamais été une question politique ici au Sénégal ñoom ñoo ko bëgg a jël bu ko def ay question politique Sénégal fii koo fi laal mën na la Sonko koo fi laal mën la Diomaye pour quelle raison parce que dañoo bëgg a toucher seen i sensibilité nguur nag ñoom le problème de l'environnement du Sénégal dafa bokkoon seen i programme dañ ñoom ñoo wax ne solution et la solution ñun bu ñuy demandé mooy que ne un cadre c'est une demande sociale su nekkee ne mën nañ ko ñu def ko suñ ko mënul ñoom man li ma gën a ñaaw la mooy que ne ñoom ba ñu soo ñëw dans un kan ngay rencontré y a le président d'ASC e qui est là y a les bàjjenu gox y a les imams. Ah, kon ñooñu ñëpp PM. ñu naka la a avisé war a ñu koy gisee ci ay ci ay ci wala ci ay Facebook c'est irresponsable Abass Fall li mu ñëw des fii nii li mu créé gis ngeen ko tension la créé entre les populations et les commerçants te am nañ de désencombrement amul tension. mu ñëw fi tey mu am tension kon lan moo ko fi indi pourquoi il n'est pas allé à Kër Massar Kër Massar le même problème mais dañoo seetaan le préfet a pris ses responsabilités est-ce que ba fi ñëwee ba léegi gis ngeen le préfet de Dakar vous n'avez pas vu le préfet de Dakar deful déclaration da ngeen dem ci yeneen communes yi ngeen gis seen préfet mooy wàcc sur le terrain xool leen encombrement bi lii kër la lii kii ñaata at mënul gis buntu këram pour quelle raison ñoo ko seetaan nous sommes des habitants de Colobane na nga pour nga wax ne Colobane nga dëkk c'est problème parce qu'on te taxe de bandit de Colobane ñun nag on en a marre de subir cette injustice trop c'est trop segam ñoom ñi nga xamante ne ñoo seen table la jaral bakkan segam ak ñun on va pas se laisser faire et du jàll cette campagne de diabolisation entre nous et le PASTEF et ou bien entre nous ou bien entre nous et Ousmane Sonko ne passera pas et ça ne passera pas Abbas Fall n'a qu'à aller moom mooy sillonné moom la ñu gis avec les responsables de Pastef kii Ousmane Fall kii kii vit ici à Colobane Abbas Fall su ñëw xam na quartier bi fii la juddoo ñun on le connaît très bien su ko xoolee su Sénégal yi xamul xam nañ ne Abbas Fall il est né ici à fii la juddoo xam nañ ko bu baax mais soo ñëwee ci gox dafa am ay kilifa yu ne ci gox bi ñëwal nga waxtaan ak askan bi d' abord le marché marché de la ñuy wax waa Colobane ñoo dagg defar marché kon soo ñëwee lan la des si fii nii campagne politique wala campagne de diabolisation la des si fii nii mais c'est irresponsable de sa part. waaw lu ma bu am dafa yomb Colobane ko xam histoire am xam ne Colobane dëkkuwaay la balay marché di ñëw marché daa am fu mu war a yem ñun suñu problème Colobane du leneen lu dul encombrement léeg-léeg la du conteneur donc ñun déjà dañu am problème ñu am oto sax pour mun a jàll c'est tout un problème encombrement bi dafa dugg ba si marché bi tey boo gisee marché bi. am na fu mu war a yem nit ñi bu ñu occupé trottoir yi occupé voirie yi en partie mais nit ñi fa la ñu dox si kaw tali bi léegi day indi lan day indi embouteillage de ce fait lan la ñuy def car rapide yi tataay dañuy dévier. récemment yaa ngi si mo dugg si koñ bi sans compter les courses poursuites ndax affaire yi da ngay gis ne incivisme dafa am amoon nañu accident bu nekk fii accident bi ginnaaw ndogal yàlla ñaari mbir la fii dafa xat. ñuy daw embouteillage lu ko xatal commerçant yiy jaay si kaw voirie yi nit yi di dox si kaw voir yi ku bëgg a moytu embouteillage day dugg si biir bu duggee si biir mais femme bi benn pël la mu ànd ak yaayam koo xam ni toog na lu yàgg amul doom ba muy am doom ba muy gaañu liir bu tooy xepp la fi bàyyi. dañ ko tënk si diggante car rapide bi at benn extension extension bi amaana bu fi amu woon sax xëy na mënoon na am nu mu duggee si biir kër gi wala car rapide bu amu woon na dina mën a jaar si yoonam donc loolu mooy njëkk a nekk problème fi na benn mouvement de sécurité en de sécurité suñu dañoo doon wàcc di xeex agression mais dañoo remarqué du ñu fu ñu faral di fekk agresseur dèjà dëkk ñu gox bi fu leen fekk mooy si table marché yi ngeen di gis nii côté marché Gambie bi si mbaar yooyu noonu ñuy daane foofu la ñu doon laxatu di gens foofu la ñu doon fekk wala si kaw marché bi tey mbir marché bi am na opital bu fi nekk Alfala tey bu amoon dara lu ñu war jël ambulance pour mën la yóbbu dañu am problème donc tey bu ñu tollee foo xam ni même ñu nekk dëkkuwaay yi wax wax naa si sax si tout un problème tey ñu nekk donc ñoom bu ñu bëggee am xew sax pour ñu mun ko def sax si tout problème est-ce que xam ngeen fi am na école bu tudd Missirah Moustapha Cissé chaque fois moo doon jël premier 100 pour cent la def euh, CM2 trois ans yi mënu fexe ba am promiscuité bi dafa gën a jaxasoo man dama fay jàngale cours du soir dajale yenn élèves yi nii pour pour pour de la bonne volonté mais tey boo bëggee tegtal nit ki école sax day am problème parce que mënut xamante entête bi parce que dafa am encombrement donc au delà de promiscuité bi au delà de encombrement mais dafa indi yeneen conséquences mooy defkatu ñaawteef yi mais si mbaar yooyu la ñuy laxatu même rond point balaa ñu benn espace ndong la amoon moo xam ne moo nekkoon suñu symbole moo nekkoon suñu retrouvaille moo nekkoon terrain Colobane ana terrain Colobane instant yi ce sont les vacances xale yi fii la ñu fo foo feneen fu dul fii tey fii ni xaw na tane sax mais sinon da ngay gis scooter yi dañuy gaare camions yi dañuy gaare horaires yi dañuy gaare ñun amatuñu fu ñu mun a jaar amatuñu fu ñu mën a déambuler trottoir yi moom wax noppi lii c'est très simple <laughs> amul compliqué dem leen xool ngeen photo ngeen filmer vous da ngeen di gis am na ndaw Colobane yàgg nañ ci nee nañ fii gis mu leeree nii donc c'est impossible donc ñun ak ñoom ñoo bokk mais marché daa am fu muy yem. musuñu gis mu leeree ni xoolal lii la la centre commercial la est-ce que à l'origine c'était commercial c'est à il faut qu'on la vérité te problème du leneen lu dul ñu autoriser sax encombrement bi ñoom ñoo gën a nekk problème parce que commerçant day liggéey foo ko ne taxaw fii liggéey <laughs> day taxaw xamul lu nekk ci dëkk bi xamul peut-être lu bëri fi ñu ko autorisé fa lay nekk mais ñu ko autorisé mais dañoo jël lu ëpp ñu ne ñoom ñoo dëkk. ñoo bokk fu ñuy jumaa yi ñuy jullee ñoo bokk fu ñu ner a nekk mais aussi da ngay xool loo xam ni dañu ne ñoom fii la ñu war a yem ñun tamit fii la ñu war a yem rien de mal amul daara dañoo jël lu te waruñu ko jël parce que ñun dañ am lu ñu soxla ci marché bi muy voirie bi ak trottoir du leneen y a pas un problème juste une manipulation politique parce am na ñoo xam ne ils sont le maire dañuy profité di lancer problème par le maire dañu bëgg a profité ne moo indi affaire yi alors rien te ñu bëri on les a intégrés dans les discussions y a ont wàcce nañ information yi est-ce qu'ils les ont fait est-ce que eux ils ont été au courant sommation yi mais est-ce que ñoom ñëpp jot nañ ko est-ce que ñoom ñëpp waxtaan nañ ci est-ce que xam ne ko ba pare du mooyu ko donc il y a beaucoup de d'interrogations mais nous on est légitime. mais PM avant muy seet ci commerçant yi sa commerçant yi est a dañoo bind réception. de la part de du directeur de cabinet Mary Teuw Niane pour wane ne que il l'a bien reçu et dañuy jàpp ni ci fan yu ñëw dinañu woo encore pour mën a lijjanti non seulement encombrement non seulement terrain bi mais tey des encombrements ñëpp xam nañ c'est partout à Dakar donc c'est programme donc dafa ne ni tuuru Colobane la te dafa yéex a ñëw Colobane fii Colobane leen kese moo ñu problème muy encombrement du leneen marché fii la war fii la war a yem donc ñoom ci boppam dañu am problème pour accessibilité de la voirie donc lu bëri dañ ko war a xoolaat li nga war a waxtaan waxtaan nañ ko bésu jëf moo def nañ compréhensible parce que y a des sacrifices ils sont obligés aussi di mën a nangu yenn sacrifice yi après ñu xool yeneen cas de figure loolu kese moo fi nekk. ñu dem déglu PM moom lan mooy doon kàddoom incha allah. ayca vous êtes sur 313 euh, Père. bonjour chef euh, bonjour. vous allez bien xoolal bi. na ngeen def. en tant que euh, je suis délégué avertir ne lañ ne euh, premier ministre daf tout à fait. Ah, d'accord. je m'appelle euh, Vieux Niang. je suis délégué de quartier à Colobane. Euh, ce, décon... Euh, ce désencombrement là c'était une demande de toute la population de Colobane. et depuis plus de dix ans nous faisons cette demande là. les trois ou quatre maires qui sont passés ici nous-mêmes en tant que délégués de quartier. nous avons fait des constitué ah, une ñun en tant que délégué de quartier constitué ay délégation ba tàyyi dem seeti ah, maire yi fi nekk ba ci maire bi fi nekk nii tey lii nag tey état moo ko sabab que ñu set setal jubbanti jubal réew mi ça a même président de la république ci boppam génn na ci télé bi wax loolu kon book ñu xam ne lii population Colobane yëpp ñoo ko sàkku waaw ñu xam ne lii ñuy def nii tey population de Colobane yëpp ñoo ko sàkku ah monsieur nag son excellence monsieur le premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar di ko teertu ah bu ñëwee tamit incha allah dina wax ñu dégg ah ñu nit ñu wax ko li ñu bëgg suñu koñ commerçant yaa ngi nii di romb di sànni xeer naan ay Colobane du du dëkk waaye marché la ñun suñuy maam bi ñuy dëkk fii ñoom seen maam fu ñu nekkoon ah ça fait plus de cent ans que Colobane existe plus de cent ans Colobane existe depuis plus de cent ans kon du ñoom commerçant yi ñooy ñoo bëgg a yàq koñ bi loolu duñ ko nangu par A ou duñ ko nangu tey nañu def marché Tilène tëj ko complètement ba oto mënatu fa jaar ñun du ñu nangu loolu waaw fii quartier la boo xam ni dañ ko dëkke euh, dagg ay yoon yu leer ah mu doon ay koñ ñu tuddee ko ay rue numéro temps ba temps parc Amazone nekk fii doon euh, euh, camp boo xam ni yàgg fi lool tey ñu amoon fa terrain de football ñun ñëpp man miy wax ak yow dama bokkoon ci ñu goroon parc Amazone en quatre vingt mille neuf cent quatre parce que ñu ca biir lañ doon fubalee lébu yi génnee ñu ne fii seen domaine la dañ fa am ay projet ñu génn ci biti foofu ñu génnoon tool woon ñun ñoo jël sunuy jaas ak sunuy gobar ak sunuy euh, rato gor ko ratissé ko bu mu rafet ñu def suñuy camp de football tey mu ngi nii ñoom ñoo ko jaay ba ba léegi ñu ngi ciy topp di daw fu ne yónnee nañ fa kayit pour ñu restituer ñu sunu terrain de football. quartier munta taxaw te amul terrain de football surtout quartier bu mel ni Colobane xam ne ay professionnels yu bëree bëree bëri génn nañ fii tey benn école ngi nii di école Missirah Colobane cadre Sénégal yu bëree bëri tey foofu fii lañ génnee mais tey yaakaar nañu ni lu tax parce que marché bi moo ko envahir. te éducation ak marché mënuñu ànd njàng mënut a ànd ak bruit bu bëri nit ki mënut a jàng ba pare nekk ci bruit boo xam ne daf koy déranger c'est pas possible waaw kon lii ala kulli xaalin dafa war a deñ ba set wicc ñu xam ne marché bi marché la koñ bi koñ la ay nitu ko dëkkee ku ne respecté sa moroom ku ne jox sa moroom àq man nag du ma ñëw dëkk ak yow ba pare ba pare nag di la xañ sa àq loolu mënut a nekk waaw dëgg ñun ñëpp ay sénégalais lañu. doxandeem amu fi ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaye nag ne ku nekk jox moromam akam bu kenn lor sa morom salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup. Ah. def maa ngi tudd nooy na waaw ah, Colobane fii daanaka ñun ban fii nekk daanaka kër yi fii wër yëpp ay brag la woon li fi nekk yëpp ay brag la tey jii su Colobane bi yokk tey ñii dëkk Colobane ñoo yokk ñoo yokk marché bi tey ba tax marché bi egg si débordé mais ñii fiy jaay yokkuñu lenn si marché bi ñii fi dëkk ñoo yokku marché bi tey jii ba li fi war a am am am ba li fi am am fi noonu la demee leneen lu fi waaye wax lu loolu waxu la lenn loo xam luy dëgg la Colobane ñi fi nekk ñëpp ay liggéeykat lan ay borom kër lan yoo xam te nit ñu responsable ñoom ñoo fi nekk ay nit ñu juba fi nekk Colobane bu njëkk ba ak Colobane tey jii bokkut fu mu toll nii daara yaa ngi fi lépp ngi fi ay nit ñu baax ñoo fi nekk liggéey yóbbu seen kër lan xam lu la waaye wax lu dul loolu leneen mais lu gars yi def moom ñaaw na trop ñëpp nga koy ñaawlu ndax tey jii nit ki soo ko yëkkatee sax da nga am foo xam te ni foo nga koy dugal mais nit ki doo ko yëkkati fenn te amoo fenn foo ko dugal da gën a yokk da gën a yokk semence si dëkk bi rek te bëgguñu loolu suñu sañoon jeunes yëpp ku bëgg a liggéey liggéey mën a wàcc sa kër ku si nekk am looy suturu ku nekk am si loo jàpp loolu kese la loolu lañ bëgg jàmm daal lañ bëgg si suñu marché bi bëgguñu fi lenn loo xam leneen lu dul jàmm waaw Colobane tey jii su demee ba yokku tey fii lépp di marché tey ñii fi dëkk tey jii ñoo tabax seen kër yi yokku marché bi problème bi yëpp loolu la ñii fi nekk yëpp ñoo moom seen kër yi lii fi yëg li fi nekk yëpp ay ay centre commercial la ak ay magasin yoo xam te ni seen borom kër yi ñoom ñoo fii ñoom ñoo tabax seen kër yi luy ay ay magasin comprendre nga loolu loolu moo tax marché bi dobate mais marché bi fii la yem si fëgg jaay bi lii jógee fii dugg si marché bi jëm ba si kii marché Gambie bi si biir loolu mooy marché Colobane leneen lu si wax leneen bokk si mais waa marché bi Colobane bi seen jëm bopp ñoom ñoo yokk marché bi amul leneen lu fi nekk benn problème amu fi ay liggéeykat ñoo fi ay nit ñu baax fi nekk ñoo xam ne amuñu benn problème ay talibé fi nekk leneen loolu wax loolu loolu waxul loolu wax loolu leer ñun nag jàmm rek lañ bëgg. jërëjëf Cheikh ayca mën nañoo avancer. ayca euh, nuyu nañ la père. naa ngi ziar ça va alhamdulilah. ban am ci lu xew tey rapidement. Euh, grand réaction bi daal ñun Colobane juddoo. fi lañ dëkk fi lañ yaroo gis nga bi ñu nekkee xale rapide dañ doon jaar fii di jaar fee ci biir bon dëkk day dox événement day dox euh, lu nekk dafay yaatu mais am na loo xam ne c'est le minimum parce que ñun suñu doom yi ñoo nekk en danger fii y a des accidents mortels te ay car rapide ñoo koy auto transport ñoo koy créé commerçant yi ñoom ku leen neexee nañu nekk seen magasin dañ leen ko loué parce que ku si nekk am nga droit ñu loué la fenn mais tali bi la voie publique dañ ko bàyyi pour nit ñi di ci dox ñun li ñu Daguerpy démb c'est avec le gouverneur avec le maire et tout le préfet était là ak waa kii ñun loolu taabal yi ñu daj taabalu mbedd la benn benn benn benn magasin taabalu mbedd yi lañ jël dindi ko te dañ koy dindiwaat ñoom lu mu leen jaral ñun dañ koy parce que ñun fi lañ dëkk fi la ñuy fanaan ñoom bu leen jaral ñu fanaan fi guddi dañ fi fanaan ñu xeex ñu te nañ ko dindi par force voilà donc loolu mooy problème bi fii Colobane la ñun Colobane lañ dëkk te fii la ñuy deewee incha allah ñu feneen ñun fii la ñu am te nañ ko sàmm jërëjëf euh, père vous êtes en direct sur 313 euh, euh, digital xam na ne lii la ñuy wax euh, tombe vraiment ndax tombé nañu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk les habitants de Colobane ñoom ñu wax ñu seen réaction seen réaction nag mooy ils sont effectivement d'accord désencombrement bi ak déguerpissement bii di am te ñoom yàgg nañu ko sàkk kon du daraay politique c'est ça vraiment le message de la population de euh, Colobane ñi nga xamante ne jot nañu leen rencontré léegi nag dinañu xaar ba PM ñëw ñu jéem a xool euh, lan moo ko yëkkati vraiment ñu jéem a avancé euh, tuuti ay dara ñu dox. même Diallo Grand yéen a ngi biir Colobane jël nañu réaction waa quartier bi. jël nañu réaction waa quartier bi euh, ñi jéem a xool euh, lan moo fi xew exactement mais Aidara gars yi fan lañ fan lañ nekkee waaw boo rek. nee ñu ñu dem xool exactement lan moo euh, fi xew ak lan moo fi am exactement.